mbokk yi ànd ak ñun ci seen euh, télévision online di Touba Monde bi TV ak seen rajo online di rajo xasida online Touba Monde bi ginnaaw bi ñu leen nuyoo siyaare leen di am loolu mbégteeg kontaante di ànd ak yéen ni ñu baaxoo ànd ak yéen ci euh, waajtaayu màggal Touba édition 2015 di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di bis bi nga xam ne ci la Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasuul euh, waxoon ne at mu ni bu dikkate rek képp ku ko man na nga ànd ak man sant ma sama borom subhaanahu wa taala bu mel ne mbokk yëpp ñu ngi koy waajal euh, seen rajo Xassida online Touba Monde bi ak seen télévision di Touba Monde bi TV ànd ak yéen di doxantu ci dëkk bi ngir yegg ci yenn barab yi barab yu am solo yi nga xam ne ñu ngi fay waajale màggal gi ak taxaw ci liggéey Serigne Touba Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul bi fi ñu nekk nag tey nag euh, mu di euh, mbokki jullit mbokki taalibe yi nga xam ne Rewas muy taalibe yi nga xam ne boole nañ seen bopp di liggéeyal Serigne Touba mu mel ne ci wolof buñ ko dee leeral mooy ay taalibe yoo xam ne euh, métier bi nga xam ne métier woon nañ ko mu di wàllu mécanicien di réparer ay oto boole nañ ci seen bopp boobu màggal Touba gi ñëwee ñu bàyyi seen waar ci liggéeyal Serigne bi mu di oto yi panne yëpp ñu taxaw leen réparer leen taxaw ak euh, vice président Rewas mu di sëñ Abdou Khadri Ka waaye itam teew ak euh, sëñ sëñ Paate Fay moom it euh, bokk ci liggéey bi kon ñu bëgg rek dékk leen sunu micro laaj leen liggéey bi kañ ngeen ko door ak naka ak naka ngeen ko dooree woon sëñ Abdou Khadri waaw salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di rafetlu teewaay bi nuyoo bi ñu ngi ciy jiital suñu sëriñ sëñ Sidi Muxtaar Mbàkke ah di ci teg ki nga xam ne mooy sëñ Sidi mu sëñ Abdoulaat mi nga xam ne moo ñu baaxee béréb bi yaatal ñu fi ba jamono ju ne fii la ñuy waajale màggal gi taxawu ujaa ji ba ñëpp mën a ñëw ah, liggéey bi nag maanaam ah, jamono ju ne dañ koy commencé ñaari fan avant màggal après màggal ñaari fan pour taxawu ujaa ji maanaam bu jëkkoon dañ daan gis nit ñi dañuy am ay jafe-jafe te comme yàlla dafa def dañuy liggéey ci wàllu technique oto yi ñoo leen di waajal bu ñuy jóg fu ñu paan ñoo leen di toppatoo bi nga xamee ni taxawal nañ rebaas Baye Ali Sow jiite ko di président national bi may vice président bi Pathé Faye di porte parole bi ñu jël initiative def benn kuréel bu ñu naan rebaas c'est le regroupement vrai artisan de l'automobile du Sénégal mu couvrir territoire Sénégal yëpp bu màggal gi ñëwee mboolem région bu nekk ci Sénégal da ngay mobiliser wu artisan yi fa nekk ñëpp affilié ci Rebaas nekk ca yoon woowa jóge ca dëkk ba couvrir ujaaj ya fa jóge oto bu paan nga dépanne ko gratuitement ba ujaaj yi mën a ñëw ci jàmm ak salaam dellu ci jàmm ak salaam léegi nag fii nga xam ni mooy buntu Mbàkke fi la ñuy campé heure buñ fi accès reson yi bu ñu màggalee ba ca ginnaaw suba sa euh, président région yëpp dañuy ànd ak seen mbooloo ñëw ñu daje fii toog waxtaan sargalante dem ci sëñ bi waxtaan ak moom a ah, mu ñaanal ñu wi yi ñu dem léegi nag sëñ bi maanaam jamono ju ne bu waxtu yu jotee dinañ dimbalee a ah, aw nag ak lu toll ci tonu ceeb ñu ngi koy sant di ko gërëm ak bon wallante yi nga xam ne bëgg nañoo liggéeyal sëñ Tuubaa ñu ngi ciy dugal seen loxo moo liggéey bi nag maanaam jafe-jafe yi ñu ci xaw a jànkoonteel ndax ah, mbirum dépannage dafa xaw a doy waar te bari na ci loo xam ni suñu moyen bopp lay doon euh, oto yi léeg-léeg am na ci ñoo xam ni bu ñuy départ dañuy teggi jaar ci suuf si bu ñu jaaree ci suuf si dañuy dem ba ci biir ñu ngiro lak raase wala ñu rak euh, disque embrayage léegi boo leen dépanné ba pare pour nga am lu leen jële foofu day doon problème mbaa nit paan di la woo di wax ak di wax ak yow tuuti kër am jeex yaay obligé di ko woo di coordonné ak moom ba kera ngay xam la mu paan xam ban marque oto la yor xam yan matukaay ngay jël wala soit mu sofe nga dépanne ko ba pare du am ndox il faut nga obligé dem wuti ndox satisfaire ko ba oto bi mën a dem ndax voyage dafa metti ànd ak sa njaboot jël sa waa kër yëpp boo demee ba ci àll nga paan dootoo tal dara moo tax ñu taxawal ko bañ ko taxawalee ba nëgëni nag gis nañ population bi kontaan nañ ci rafetlu nañ ko ñu ngi ciy gën a góorlu territoire Sénégal yëpp lañuy la ñuy def xale yi nga xam ne ñoo ngi ciy ànd ak ñoom itam ay jàmbaar lañu du ñu sonn guddi du ñu sonn bëccëg dañuy fanaanee liggéey ku ci nekk foo ko yawal dina fa dem bu ñuy demit dañuy jël xale yu gën a xarañ gën a yaru mandarga mi ñu yor muy gilet bi wala tiset bi ñuy sol am nañ numéro téléphone numéro weer boo xam moo ci nekk képp koo xam ne yaa ngi koy dépanner numéro boobu lay jël dépannage booba bu ci amee lu la naqari numéro ba ngay jël pour woote bureau national ñu saafara ko wala soit bu la laajee dërëm. bu ñu liggéeyee ba pare PV yi yor dañ koy vérifier ku ci nekk dinañ la woo ndax rewaas daf la defal intervention ndax kontaan nga ci wala ban gàllankoor nga am lépp loo xam ne am na ci rëq ñu ratifier ko ñu ngi euh, sant nag parce que ñaanu sëriñ si vraiment nekk na loo xam ni si na ndax saa borom defal nañu def na ci baatin ak barke boo xam ni oto buñ songu saa borom dinañ ca defal ndam ba borom dina mën a ñibbiwaat ci jàmm ak salaam. waaw jërëjëf sëñ Abdou Khadir mu mel ne eh, li ñu ci bëggoon a dolli rek ci laaj mooy mm. eh, da ngeen di liggéeyal Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul te ku ni xam na ni Serigne bi mm. amul tànki gannaaw tànki kanam rek la am mm. kon liggéey bi jamono bu nekk wala at mu ni ak yokkute def ci war a am ñu bëggoon a xam rek seen waajtaayu màggalu ren édition 2015 par rapport ak màggal yi passé lan moo ci yees ak lan moo ci dolleeku waaw euh, wàccaay bi moom ñun toujours xam nga Baye Fall ci tool moom wet gu ko neex lay béyee ndax ñun dañ ni balaa ñuy départ secteur bu ci nekk yow njëkk a jël saw ñàq dugal ci dañ naan ku ci nekk da ngay cotiser cinquante mille francs secteur bu ne andi cinquante mille ñu jël suñu matukaay bépp benn volonté boo xam ni dugal nga ci sa loxo tam ñu jël euh, dugal ko ci biir euh, mbirum sëñ Tuubaa nag amul tànk ginnaaw tànk kanam laam waaw ñun ku ñëw dinañu dem ku ñëwul dinañu dem sëñ bi nee na lii moom kanam la jëm. bërigo ci mbartal la képp ku ci jëf yaay gënu demen ku ci jëful du nekk loo xam ne lu yàqu luy jëm kanam la képp ku ko bëgg yàqu da nga yàqu wax joojee nag jox nañu courage jox nañu fit ba amuñu benn tiitukaay amuñu xalaatuñu dara loo xam ne ñu ngi ne gàllankoor waaw ndax mbir mi maanaam yaatu na yaatu koo xam ni ku ci nekk war nga ci mën a bay sa waar teg ko ci yoon mu sell ndax liggéeyu Sëñ Tuubaa la ku ci raw raw waaw loolu daal la <coughs> waaw jërëjëf sëriñ Abdou Khadri Ka kon euh, mu mel ne leeral nga ñu bu baax liggéey bi fa mu dooree waaye leeral ñoo tam jéego yu am solo yi nga xam ne dox ngeen ko ci hmm. waajtaayu màggalu ren bi ak di ngeen ci doxee ak kilifa yi nga xam ne def nañ ci seen loxo hmm. waaye leeral ñoo tam ne liggéey bi da ngeen koo teg nag ci anam bu sell anam boo xam ne bu wérte wóor la hmm. euh, mboolem ku ngeen jëflanteel da ngeen ko laaj ak ñi ngeen leen booleel liggéey bi naka lañ ko taxawoo waaye sart yi am li ci gën am solo mooy sart bi nga xam ne moom ngeen di doxee mooy ne da ngeen di réparer gratuit kon képp ku ngeen yabal mu dem ci famille euh, kami réparer ngeen ko laajaat après ndax kooko laaj na leen dara wala laaju leen dara hmm. ngir euh, jaayante bi nga xam ne jaayante ngeen ko ngeen man koo dëggal man koo wéyal hmm. kon mu mel ne dañuy daal di jox kàddu gi sëriñ sëñ euh, Paate Fay moom moo yore kàddu gi fii ci Rewas hmm. di barab bi nga xamante ni mooy ay mbokki taalibe yu boole seen bopp di réparer li nga xam ne moom moo di oto yi nga xam ne ñoom ñoo paan ci jëm si ci màggal gi kon euh, sëñ bi li ñu lay jëkk laaj rek mooy ndax amaguñ ngeen bilan provisoire ci màggalu ren gi ndaxte dépannage gratuite bi ñoo ngi koy commencé Tëngéej boo rombee station Total bi si Tëngéej si booru terminus dem dikk bi baas bu mel nee nga fa boo ñëwee Thiès baasa nga fa boo ñëwee Bambey baasa nga fa boo ñëwee Njaareem baasa nga fa boo demee Gosaas ñu jóge Kaolack nga fa boo demee Wili Ngara diggante Wili Ngara a nga fa boo demee Kolda avant nga yëg sa Wili Ngara baasa nga fa boo jaaree yoonu Louga gii baasa nga fi boo jaaree yoonu Daaru Musti bi jëm Kébémer baasa nga fa boo boo ñëwee fii ci yoonu Kaffrine baasa nga fa diggante Tamba ak Koungheul baasa nga fa diggante Tamba ak euh, diggante Tamba ak euh, Vélingara baasa nga fa boo génnee Mbour baasa nga fa lépp màggal gi rek la ci la koy commencé baas yooyu alxames ci guddi. lañ koy dindi ñëpp ñëw daje si fii àjjuma bu ñu ndëkkee ba pare toog waxtaanaat suñu biir dénkuntewaat nata màggal rek la reewaas jëpp di daje bu dul màggal reewaas jëpp duñu daje bu dul màggal yeneen événement yi secteur bu ne ak ña mais màggal lañu yàlla boole muy bés boo xamante ne ñun ñu ci bokk mag ak ndaw ñun ñëpp daan ñu daje fii bu liggéey bi passé bu màggal gi passé ñetti fan ñaari fan ñetteel ba ñun ñëpp daan ñu daje fii waxtaanaat saafontewaat baalante waat àq janjaat xale yi ñu góor góorgóorlu ñu ànd nag takku bu suur boobu nag xalifa général moo ñu jox añ bu ñu añee ba pare mu ñaanal ñu yeewu ñu kon satisfaction am na fii mu toll bu ñu àggoon ci liste yi lu mu néew néew ay ay dépannage di nga fekk téeméeri oto yoo xamante ne départ nañ ko te tey la altine suba la talaata di bisu màggal gi téeméeri dépannage yoo xamante ne benn bu ci nekk mën nañu laa jox numéro oto bi jox la marque oto bi jox la heure bi mu nu wooyee jox la heure bu ñu fa àggee heure bi ñu dépanné heure bi mu paree lanu jëflanteel lan ko sensé lépp ñu jox la ko ba muy téeméeri oto loo ci am werante jëlal téléphone woo ko numéro oto bi ñu lay jox numéro téléphone am ngi ci lépp ngi fi boo ko wooyee laaj ko yàlla nu ciy dimbali bu baax a baax nag bu baax a baax. jërëjëf mu mel ne kon mm. liggéey bet yëpp mu mel ne kon li nga leeral am na solo lool macha allah ci liggéey bi wax ñu wala xamal ñu ay barab yu am solo. ci biir réewum Sénégal bàyyi ko ca Ndakaaru wala ci euh, penku dëkk bi ci barab bu nekk rek. am ngeen fa ay barab yu nga xam ne ay mbokk nga fa. ngir xaar wala ànd ak mbokk yi jóge ci gox yooyu ngir jëm si Touba ngir ku ci am jafe-jafe ñu taxaw la waaye na ñoo xam hmm. euh, relation bi nga xam ne am ngeen ko hmm. seen diggante ak euh, comité d'organisation màggalu Touba ndax ñoom ñooy comité bi nga xam ne li ëpp hmm. ci wàllu gi ñoom ñoo koy saytu ban relation ngeen am seen diggante diggante ak relation diggante comité organisation yi am nan ko mais xóotagul ndaxte li tax xóotalagun ko mooy ñun lii dañ koo def suñu toolu àllarba ba nga xamante ne bala noo ñëw nooy waajal suñu ñaq ba pare doogu ñëw fii nag àndaale suñu doole ak suñu xam-xam ndaxte dañ ne dépendance gratuite bu lijjanti bi baree ci àll ba dafay mel ni kon intérêt ngi si biir bu nuy daw di ko wuti bala noo ñëw secteur bu ne di wër say membre ci Dakar vingt vingt quatre secteur la bu dee section Dakar secteur bu ne da nga daan andi fukki junni secteur yëpp bu ñu nekk andi fukki junni yéen a koy cotiser mécanicien yi solsile yi xale la ñuy dunde fii xale yu tuuti yi seen xaalis la ñuy dunde fii man secteur Colobane laa bokk fukki junni lay teg ci taabal ji président vice président mi doon wax secteur pompier mooy président ba fukki junni lay teg ci taabal ji ñëlee toog secteur défense la ñu bokk fukki junni la teg ci taabal ji bu loolu lépp matee nag ñu ne ñaata gasoil am na nañu nag sëñ bi defal nañu ko am na nañu ceeb sëñ bi defal nañu ko kon mu ne lan la ñuy dugg lan la ñuy am ci ndox lan la ñuy am ci nangam lan la ñuy am ci nangam lan la ñuy am ci nangam lu ci des ñu ne kenn ku si nekk nag làmbaatal sa poste wala seetal koo man mu jàppale nañu ci lii waaye sunu ñàkk lañ fiy andi avant tout ba pare nag doog a andi sunu doole ak sunum xel dañuy olof moo ko lépp mu ne xer buy tëyew sàkket da cay dar bés doonu ñor kon du ñu ñëw ak suñu kii ñaan wër dëkk bi di ko ñaan ñëw dañuy def dépendance gratuite kon defatuñu gratuite dañuy andi suñu ñàkk dajale ko ba pare am andi suñu doole ak suñu xel lépp jox ko Serigne Touba yàlla def na nag liggéey bu yemul fii bu ñu jógee fii ñaar fukki fan ak juróom la ñuy toogaat préparé dem gàmm gàmm nag moo gën a yaatu gàmm daañu ko def daa ñu ko def Thiès daañu ko def cena Thiénaba daañu ko def ba biir Fuuta daañu ko def fépp gàmm buñ jógee si gàmm ba Njaasaan buñ fa jógee appel ba buñ fa jógee Popenguine sëriñ sii di mu ne bu ma leen déggee Popenguine damay kontaan sëñ sii dee muy wax mu ne bu ma leen déggee Popenguine damay kontaan hmm. sëñ Ablaye sa sa sa mu ne bis jërëwoon ñëw bu ma leen gisee Touba gis leen Tivaouane laa kontaan ma teg ci Popenguine jërëwoon ngeen di ñëw bu kontaan naa ci yéen xalifa yëpp wax nañu loolu yéen ñi fi ñëw tey nag na yàlla guddal seen fan yàlla na ngeen ñu yàgg dénk njëriñ di ci am ñu yàgg wax lépp di njëriñ si barke sëñ Touba jërëjëf kii kon ginnaaw kàddu yi am solo yooyu nga xam ne mbokk yi leeral nañu ko muy vice président Rebass euh, ak euh, ki nga xam ne moom moo yore kàddu gi mu mel ne li ñu fi tënk lu am solo la ca am na mbokk yu nga xam ne ñooy bàyyi xel euh, suñu site internet bi di Touba Monde bi TV ak rajo Xassida Online Touba Monde bi ca dégg beneen kàllaama mu di kàllaama nasaraan kon dañ koy daal di jox kàddu gi moom sëriñ Ousmane Ba moo di secrétaire général national ci euh, euh, Seras kon ñu rewa rewas kon ñu jox ko kàddu gi mu tënk li muy tënk ci wàllu nasaraan jërëjëf sëñ tuba jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba je crois que ça c'est une réjouissance pour tous les Sénégalais le fait que des Sénégalais natifs de ce se réunissent en un seul group appelé Association Regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal dans le but de venir quand même apporter leur soutien pour le vénérable guide religieux Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Nous saluons cet acte et je crois que dans la mesure où nous sommes, tout un chacun parmi nous doit pouvoir sa contribution pour que le Magal de Touba soit honoré, fêté, je dis bien fêté, Parce qu'il dépendait quand même de la douleur du grand marabout Srin Touba Khadim Roussoul, qui a beaucoup peiné pour, le, pour la peau noire, qui a beaucoup peiné aussi pour l'être noir. Si aujourd'hui on se retrouve dans ce pays en train de faire comme du bénévolat, c'est grâce à Srin Touba Khadim Roussoul. Nous le remercions. Et nous ne le remercions jamais assez aussi. Vous voyez que ces jeunes qui sont là réunis aujourd'hui, ils sont là uniquement pour travailler dans dans la mobilisation, dans l'union des cœurs, uniquement pour apporter quand même un magal remarquable, dans l'honneur de tout un chacun, dans tout un chacun, de tout un mouride qui se reconnaît mouride et se reconnaît aussi sénégal et africain. Vous les voyez, ils travaillent durant cinq jours, ils passent la nuit en dehors, ils travaillent suivant leurs biens, nous cotisons euh, suivant nos moyens d'abord, mais aussi je vous dis très bien aussi qu'il y a des vieux qui sont derrière nous. qui nous accompagnent, qui quittent leur famille, qui quittent leur garage, qui quittent leur famille, uniquement pour travailler quand pour le bon déroulement du Magal de Serigne Touba Khadim Rassoul. Nous en sommes fiers parce que nous sommes des Sénégalais. Nous en sommes fiers parce que nous sommes des musulmans. Nous en sommes fiers parce que nous sommes des mourides. et nous croyons quand même à Serigne Touba. Nous croyons au Mouridoula. C'est pourquoi ces jeunes sont la pour travailler durant cinq jours. uniquement pour venir en aide aux usagers de la route, pour apporter aussi notre soutien aussi aux pèlerins de Touba. Mais cela ne finira pas aujourd'hui. Nous l'avons démarré depuis 2009 et jusqu'à présent nous savons que nous qui, qui, sommes que des avantages. Nous avons un avancement remarquable sur le plan, le plan bénévolat de ce que nous faisons annuellement à Touba pour le grand magal de Serigne Touba. Et je vous dis très bien que vous qui êtes là, les Sénégalais de la diaspora, à votre retour en Europe, aux États-Unis, en Asie, ceux qui sont restés là-bas, dites-leur que nous travaillons pour eux. Mais nous avons tout notre cœur avec eux. S'ils n'ont pas les moyens de venir, qu'ils sachent que Serine Touba est toujours avec nous. Il est parmi nous, il restera toujours avec nous. Touba. Ah Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey ñu rafet lool ànd bi nga xam ne yéen koy ànd ak ñun ci seen télévision online di Touba Monde bi TV ak seen rajo online di rajo Xassida online Touba Monde bi ñu nekk di waajal fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar mu di màggalu Touba édition 2015 noonu ñu leen ko waxee nag ñuy doxantu ngir ànd ak yéen ci ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñi ngi ci bànqaas yu am solo mu mel ne ginnaaw kàddu yi nga xam ne jot ngeen ko dégg ci ak mbokk yi nga xam ne dékkoon nañ leen sunu micro ba tey ñu teewaat ba tey rek ak mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo di waa Rewas ñi ngi gis nag ci Sileye Rewas bu Euh, ñoom it ñi ngi taxaw mhm. nekk ci liggéeyu sëriñ Touba bi mhm. kon euh, ma mel ne ñi ngi taxaw ak sëñ Mamour Seck di vice président sëñ Mamour ñu bëggoon a xam seen taxawaay ak seen liggéey ak euh, seen kuréel bi naka ngeen koy doxalee waaw dëgg la bañ sante yàlla julli ci yonent di doolee sant sëñ bi tey ñaan yàlla Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké mu yàgg fi te wér lool ñoo ngi def di indi suñu contribution ci sëñ bi ndax sëñ bi am na lu ne lépp lu mu soxla lu ne rek am na ko ci biir taalibe yi te ñun bokk ci taalibe yi loolu moo tax ñu ñëw di ci bay suñu waar tey ñaan yàlla yàlla yàggal ko fi loolu liggéey bi nag liggéey la boo xam ne duñ kenn fukki dërëm boo paanoon fii ba kees ba tëngéej dañ la fay fekk ndax am nañ élément yoo xam ne pour loolu kese lañ ko fa tegee am na ñoo xam ba léegi ña nga tëngéej ak Thiès ak Bambey ak Diourbel ba fii ñoom fa la ñuy toog ñu def cérémonie kii bi ba pare ñu soog a ñëw ñu ànd ak ñun doog a ñugee fii dem siyaare ji sëñ bi mu ñaanal ñu liggéeyal sëñ Bamba dong nag moo nu ñor ak fu taalibe nekk ku mu mën a doon ñun ci loolu dong la ñuy xëy ndax xam na ne ouvrier ci événement bi la mën a amee xaalis waaye ñu jaayante ko ngir sëñ bamba ngir bëgg pay ko sëñ bamba dong moo ñor moo tax ñu bàyyi lépp di ko liggéeyal kese te yàlla rek tax jërëjëf sëñ Mamour